ko defee mu mel ni day nekk xutbatul juma fi chahri ramadan al karim xutba juma yi ci biir weeru koor mbokk jullit yi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci weer wi nga xamante ne weeru barkel di weer wu bari ay ngëneel bari yiw weeru barke di weeru yërmande weeru njot la ci safara yanoon ci yàlla musal musal leen ci mbokk yi ponk lislaam juróom yi boo ding ci fekk ponk bu ñuy wax shahru ramadan al mubarak di weer wu yàlla barkeel weer la woo xamante ni ay ngëneelam laa tuaddu wala tuxsa bari na lool ba kenn mënu lim te lépp nag di ay ngëneel di ay njariñ kon xutba tey bi dañu leen di indil li nga xamante ne mooy ponki koor ax lenn ci lu ñu sopp ci koor nga xamante ne doom aadama bi day xam ne li jëkk ci koor mooy yéene waaye li ngay yéene lan la nga xam ne farata bu yàlla wax ne yaa ayyuha allazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ين جلدي ما فرطال تي ينكور نمكو فرطال تي خير يلين جيتوون كون كور يغنى في خجنا نينين ني دوحلو نيكو نيكو يال بغي واي كور موم على كل حال يغنى waaye bu mu ci mën a doon rawatina bi mu jox saydul wujudi sallallahu alayhi wa sallam finalité koor jeexantel go mooy allah loolu la yàlla di seet ñun mooy mu ne la laallakum tattaqun mbokk yi taqwa allah mooy def ay digleem allah mooy bàyyi ay tereem kon li ci jëkk mooy an niya mooy da ngay yéene nga ne ah ñu ne la weer wi day feeñ na nga ne maa ngi am yéene or weeru koor benn yéene boobu dafay valable pour koor gi yépp jarul bés bu ne rek ngay yéene waat yonente bi nee ne ku fanaanoowul yéene sa koor baaxul mooy bu doon benn fan par benn waaye nag dafa tax taxala ko dafa dafa dafa tegloo kon fan yooyu yépp benn yéene bi rek dafay valable bu fekkoon dina ngante dafa ñëw nga war a reprendre da ngay beesalaat beneen yéene pour fan yi la dese wala benn fan bi la dese mbokk yi yéene ci xol lay ne innama al amalu binniyaat nga fas ne lii day maa ngi koy def jaamoo ko yàlla maa ngi koy def ni ko yàlla bëgg boo noppee ci loolu al imsaaku an al muftirat min tuluwa alfajiri ila hurubi shams nga bàyyi lépp lu la man dogloo jami il muftiraat lépp lu la mën a dogloo gis nga fon foofu liy dogloo doomu aadama bokk na ci lekk naan waaye du yooyu rek yenente bi wax na ci lu mel ni jëw kooku dafay yàqu koor ak yeneen yi nga xamante ne loo mën a jëf la ci biir weeru koor ñu tere woon la ko luy yàqu koor lu mel ni sëy ci wàll ci biir koor lekk naan wax nañu ko wala jëfandikoo laneen loo xamante ne nii dana tax yow ngay am bànneex yenn yi ci biir weeru koor ci wàllu sëy wala yu ni mel loolu dafa yàq koor walla lépp loo xam ne da koy jël ci wàllu faj yi nga xamante ne moom looy euh, naan yooyu dafa yàq koor wala bok lo xamantene daf lay jox li nga xamantene mom moy moy kantan lu melni perfusion yi ah yenen ah yenen yu ni mel yoy yep moy al muftirat mune nak wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al hayt al abyad min al hayt al aswad min al fajr summa atimu siyam ila al layl kon nak mune lek len nan len ci bëccëg bi ba jant bay di so fan ngeen koy tàmbalee nag mu ne min alxaytil aswadi min alxaytil aswadi alxaytil abyad gum gu weex gum gu ñuul gi li mu ci namm mooy kinaana la di dàkkantal mooy li nga xamante ne mooy fajar gi bëccëg bi di ñëw mooy xaytul abyad guddi gi mu fi bàyyi di ko fi jële mooy xaytul aswat mana lekk leen naan leen ba fajar jot su ngeen di ràññee ne weex weexu bëccëg bi ñëw na fajar jot na rek bàyyi leen lekk bàyyi leen naan loolu nag montre yi dana la ci dimbali waxtu sàngam bu ñu fa tolloo rek na nga bàyyi lekk na nga bàyyi naan noonu nga koy jàppoo ba guddi kon loolu mooy alxaytul abiyat wa alxaytul aswad mooy guddi mooy bëccëg bokk na ci yooyu bàyyil lépp loo xamante ne nii boo ko laalee mën na la yàqal sa koor am na nag yu ñu sib ci biir lu mel ni parfum bu bari waaye araamul yàqul koor lu mel ni soccu ñenn ñi ne ci yenn waxtu yi walla soccu bu tooy waaye yàqul koor la say yàqu koor mooy lu tam lu tabbi si sa gémmiñ wàcc ci biir boli gi dem ci biir bi loolu dafay yàq koor waaye bu dee nag looy jëfandikoo la loolu moom boo ko mënee moytu moo gën lu mel ni cuuraay lu mel ni parfum yi ci yenni waxtu yi wala yu ni mel waaye yooyu yàqul koor soccu gi it yàqul koor ko defee boo ko mënee def suba gi bu ngoon gi jotee nga mën ko moytu ndoku kon yooyu mbokk yi ay mbir la yoo xamante ne nii kii oor war na ko xam yenente bi sala salaam nee na bu weeru koor duggee rek li suñu borom tàmbe tàmbali na moo tax bokk na ci yiñ la may mooy al ixtisaalu sangu wala nga toogoon jamono tàngoor la wala yëg nga sa yaram tàngaay nga dem laal ndox kooku dara amu ci may nañ la ko comme ni ngay tànge nga taal sa ventilo sa clim may nañ la ko noonu lañ la may waaye liñ la mayul mooy ngay jël ndox di ko dugal sa gémmiñ ngir ne ah na naa soppi sama gémmiñ déedéet fi ñu la ko mayee mooy booy jàpp rek sarax ko fiiru foofu bul dugal sax ndox mi lu bari kon yooyu may nañ la ko sangu dara amu ci ila axirihi lu mel ni tuflit dangay nit buy wax tuflitam dafay ah, wëlbataku ci gémmiñam loolu du foo toll rek ngay tufli déedéet loolu moom day ñëw instantanément kon ni muy ñëwee lay delluwaat jarul nga koy dajale sa gémmiñ mu lay sonal waaw ah, loolu xëj na euh, xale yi ñoom la daan sonal waaye defe naa léegi macha allah te surtout dëkk bi ñu toll jamono bi ci wàllu corona bi yal na nu ko yàlla daxal yal na nu yàlla aar bu baax a baax ba lépp li nga xamante ne ay mesures de barrière la nañu ko jël bu baax nañu moytandoo ko bu baax mbokk yi bokk na ci yin la may ci biir weeru koor nga mos ñam kiy togg ala xaal kuy defar lu ñuy jëfandikoo kiy togg may nañ ko mu ñam waaw ah, may nañ ko mu ñam mbaa ñam lu muy yóbbu ci bëleem déedéet mais mu teg ci làmmiñam xam ndax la muy def ci wàllu xorom nga ci wàllu suukar sa ci wàll ci wàll ndax weexul ndax nangamul bu paree bu ko yëgee ci làmmiñam mu uh, génne wat ko yooyu may nañ ko ko waaw wala boog bu ko mënul xool mu am ku mu ko xool lool même boo toggul waaye moom xëj na mënul maîtriser loolu mu jox la nga xoolal ko te da nga or bu boobaa may nañ la ko ndax loraange moo ci topp bu ñu ko deful yooyu may nañ ko dara amu ci waaw bu njëkk sa daa gis ñu seet ci kër gi koo xam ne woorul ndax ngànt ñu jox ko mu ñam bu fekkee loolu mën naa nekk waaye bu amul moom kii oor kenn terew ko mu ñamal kii togg walla moom ci boppam mu xoolal ko boppam bokk na ci noonu it eh, am xet gu neex moom laa tudd sànq ci parfum kooku terewuñu ko ah, ndax doo oor rek bàyyi yaram wi noonu socc it doo oor rek bàyyi gémmiñ gi noonu yooyu yëpp daal ñu xam ne doomu aadama bi kon koor mbokk yi yooyu ñu bàyyi ci xel su ko defee euh, yàlla na ñu yàlla defal tawfiix loolu bunt bu jëkk la ci li nga xamante ne mooy lenn ci ponk yi aj euh, ci ponk yi koor yiñ ci sopp lan nga war a bàyyi kon nag nañu góorgóorlu bu baax yonente bi ne képp ku bàyyiwul waxu caaxaan waxu mboosóor yàlla amul soxla ci nga bàyyi lekk bàyyi naan kon nag boo wooree am na yeneen lu la lislaam wax ne góorgóorlul ci li te yooyu incha allah ci waxtaan yi di ñëw danañ ci ñëw ax yéen su ko defee yal na yàlla defal leen tawfiix yal na yàlla dolli sutura mbas mi nekk ci àdduna bi yal na nu ko yàlla dàqal ci barke weeru koor wi yal na nu yàlla defal sutura bu baax te mbokk yi na ngeen jël seeni matuwaay jamono bu ne yéen a ngi dégg kaay ni muy ni muy dolle ko te daanaka koo wax rek mu ne la ah Euh, um Sénégal kat dafa xaw dëgër bopp kon nag loolu wax dëgg yàlla du lu baax nañu dégg li nga xamante ne moom la kër docteur wax te kër docteur li mu wax moom la lislaam wax na ngeen na ko bu baax buñ ne confinement rek vingt ba six heures du matin déedéet mais bëccëg bi nañu moytu daje yi nañu moytu daje yi su ko defee daje yu mënul ñàkk rek dem ci marché bi jënd la nga soxla daw dellu wat toogaayu grand place waratul am soxlaawuñu ko ñii bokk fu ñuy liggéey ñoom nañu jël seeni distance ku leen farax ñu ne ko demal nañu éviter yooyu yëpp jaay jaayu mbedd mi nañu ko moytandoo ko bu baax parce que kenn xamul nit day jël fii xaalis laal kii jox kii yooyu na ngeen ko moytandoo ko mbokk yi bëccëg bi daal nañu góor góorlu bañ di dajaloo su ko defee daal yàlla mën nañu ci defal tawfiq lii mooy li ñu leen indiloon tey ci seen waxtaanu tey bii ci aljuma gi di len ñaanal yàlla tawfiq di ñaan yàlla sutura rew mi aduna bi yàlla na fi yàlla dolli jam docteur yi ñu ngi len di massaw di len ñaanal yàlla defal len sutura bu baax defal len sutura bu baax parce que ñom buñu amé ndam rek ñëpp am ndam ñëpp féex ñëpp am jam waye duñu ñu fàtte benn yoon suñu mbokk yi nekk bitim rew ñu ngi len di ñaanal tamit yàlla yàlla defal len tawfiq yàlla sammalen ar len leen wassalaamu wa rahmatullahi wa barakaatuhu